asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe rawatina njaboot gi nga xamante ne bi ñoom la yàlla dogal seen bunt ci sëriñ tubaa jaare ci kër cheikh mahamadul bachir moom sëriñ tubaa xaadimu rasul am na ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa jaar ci sëriñ cheikh mbàkke moom sëriñ abdulatif jëm ci mbooleem taalibe bu yaakaar sëriñ basiru ñun ñëpp ñu maase déglu ko bokki taalibe yi ni ko sëriñ Fallou Galas waxee rawaate nun taalibe yi nga xam ne sëriñ Basiiru day sunu bunt ci sëriñ Touba dafa am ay kàddu yoo xam ne sëriñ bi daa waxoon ne ma jottali leen ko te lépp nag delluwaat ci laa biir rek sëriñ Muntaxa ak yéeneem jure yi ci taalibe yëpp ci bëgg kenn ku nekk fa nga nekk mu won la fa na ngay gën a mën a jariñoo ci sëriñ bi te jariñ sëriñ bi nag kenn da caa mënta jariñu ci di jiitaloo yaar mooy passeef bu dëggu ak li fas ku yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa passeef bi ak liggéey bi nag kenn ku ne da nga ciy góorgóorlu sa bopp boo ci góorgóorlu sa bopp ba noppi nag ñu won la yoon wa ngay jaar nag ba mën a liggéey loolu mooy sunu tawfeex ji ñuy amee ci sunuy jëwriñ kon nag nun suñu jëriñ ji di Cheikh Amadou Mountakha ñëpp xam nañ ne li mas yitteem mooy liggéeyal Serigne Touba waaye liggéeyal ko ci taalibe yi waaye teete taalibe yi ba gën leen a teg ci yoon wi gën a mën a liggéeyal Serigne bi Serigne Mountakha nag waxoon na ay kàddu yu gàtt yom ne nan ko waxtaanee nun taalibe yi Serigne Bassirou kàddu yooyu mooy moom bi bi mu fi nekkee. te jiite bi sëriñ Basiiru bi danoon def at mu nekk mu wax ne nanu dajale sunu addi lanu am yóbbul ko ki fi nekkal sëriñ Touba jàppalee ko ko ca la muy liggéeyale sëriñ Touba te loolu mi ngi gën a firndewoo ci jumaay Daaru Minam jee ba mu àggee ndax ba Cheikh Moustapha Bassirou wàccee ab liggéey dem àjjana sëriñ Mountakha ne ci kanam liggéeyub sëriñ Bassirou bi booba it sëriñ Mountakha ay bañ ñaanee ba ci ëllëg sa rek dafa waxal boppam ne dafa fas yéene li muy liggéey li muy liggéeyal sëriñ Basiiru mu tàmbalee ko ci pénc mi penc ma na ko ci tàmbalee mooy jàkka ja la njëkk a fas yéene yeesal jëli fa dafa nekkoon liggéey ko liggéey bu mucc ayib boo xam ne méngoo naag yéeneem ak taxawaayam sëriñ Basiiru ba liggéey ba àggee jumaa ja mu ne kon nan dajale suñuy addiye kër sëñ Basiru bañ dajale addiye ba noppi moom mu mottali ko ba mat juróom-ñaar fukki million ak ñaar mu wax ne lii kat dama koy jéggaloo ji ak njot laa ko tudde ndax bi may tàmbali liggéey bi dama ko tàmbu tàgguwut sëñ Baara mi fi nekk di sëriñ Tuubaa ma bëgg nag boole caali caabi yi ak limub juróom-ñaar fukki million ñaar yi ati sëriñ Basiru yët ko sëñ Baara jéggiloo ko def ko njot gi jox ko caabi jumaa ji moo xam ne jumaa ji sama yoon nekku ci dama ko liggéeyal sëriñ Basiru rek defal ko addiyee sëriñ Tuubaa ba loolu amee mu yóbbu juróom-ñaar fukki million ñaar ak caabi jox Alaaji ci àllëg si àllëg si indi caabi ya daaru minam woo sëriñ Abdul Hakim jox ko caabi ne ko def naa la nga yilimaane jumaa ji booba it la ko njëkk daawuñu fi julli ajuma ca laa Alaaji Baara joxe ndigal ñu ubbi ubbi jumaa ja bisub àjjuma def ko juma Serigne Abdou Hakim tëral la muy tëral ca yilimaanam ak ca nos ba wéyal liggéey booba ba ca déwén sa nag Serigne Mountakha wax ne kon kat loolu woowu yoon la sàkku di ko def muy sunu yoon u ñuy liggéey la Serigne Touba at mu ne nan fexe ba juróom-ñaar fukki millions yi ak ñaar nu dajale ko <coughs> ku fi nekkal Serigne Touba ngir ko ko jàppalee ko ko ci la may liggéey la Serigne Touba noonu la ko def alaaj baar ci déwén sa Alaaji Waali wàccee at mune ne mu ne ko defal noonu la koy def Sëñ Sidil Moxtaar ko dajee dajalee ba mu daje mu sàkki jenn jëwriñ ci këram ne ko àndal ma ñoom ñu yóbbu àddi yi ci noonu lañ ko doon def at mu nekk waaye fan yii nag ñu weesu taalibe bu ne nam tàmmee liggéey rek taalibe yu bari dañ doon ñëw di wax ne leetar yañ daan jot ngir man koo waajale seen addi at dañoo jotagul leetar ya ñu ci bari buñ masaan ñëw sëñ bi di leen wax ne liggéey bi kat day benn rek moo tax kon daanaka lettre yi jël ko waaye bi nga xamee ne nag ñi ñëw di ko sàkk mi ngi bëgg a bari te fekk lettre yi sëriñ Moustapha Bassirou moo ko tàmbali woon ba mu ko te moom naka jekki loolu ya noonu la ko daan doxale ba mu ko daan tàmbali itam daana xam taalibeem bu nekk fa zaman man toll mu jox la lettre ne la na nga wut nangam andi ko sëriñ Moustapha Bassirou daf ci daan boole ne yi bàyyi xel warteefu ab taalibi murit bokk na ci at mu ne mu sàkk lu mu tudde addiye jox ko ab wasilaam te loolu ci moom itam ci jàngale taalibeem la bokk ndax Sëriñ Tuubaa moo wax ba itam ba Tuubaa li abdin muridin sadiqin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyati kon hadiye dafa bokk ci warteefu ab taalibe murit at mu nekk ba sëñ Moustapha tërale loola ba sëñ Muntaxa ñëwee at mu njëkk bañ ko waxee mu ma loolu kat yéen ko daan liggéeyal seetlu na ngeen ko daan defee ndax baaxoowu ma woon ay lettre bind ko nañu ko mu Moustapha Bassirou doon bindloo moo ko waxee mu ne waaw kay nii la baaxee moo tax mbir mu ne ka ko xam moo ko mën a saytu at mu ne nag weer at ma saan toll ci dee dañuy def ay lettres yoo xam ne mel ne bu ñu ko defee ci weeru décembre yi atum 2019 la ñuy bind mu mel ni at yi at mii ñëw lay doon bi mu demee noonu nag sëriñ bi na ma kon nga wax taalibe yi ne leen lettre de la tax ma doon ko joxe ab soññee rek bëgg nu bokk góorgóorlu daawu ma ci def sax aw sas dama daan wax ne lu waaye mën na ko indi nu boole ko yët ko ki fi nekkal sëriñ Tuubaa man daanaa ci boole ay kàddu yu gàtt sax di wax ne sëriñ bi sasunu waaye moom sas na boppam kon nan xam suñu bopp noonu ndax sëriñ bi juróom-ñaar fukki million ak ñaar nee na mënta manqué kon kenn ku ne la nga defoon na ko ba na yokk waaye bu mu wàññi ko noonu lañ ko doon doxee sëñ bi nag ne ma naa xamle ne booba doon daa jiitoon kër sëriñ Basiiru di ànd ak njabaru sëriñ Basiiru di socc ki fi nekkal sëriñ Tuubaa léegi nag liggéeyub sëriñ Tuubaa bi egsi ci boppam egsi ci loxoom kon lu baral kenn aw sas waaye nag yéene na njabootu sëriñ Basiiru ñu góor góorgóorlu ba ba ñu des gannaaw wolof nag day wax ne ku yokkut da ngay wàññi kon loolu lañ ci mën a déggee mooy bu ñu des gannaaw mooy kenn ku ne la nga daan def xamal nga ko sa bopp wala la nga man xam nga ko yàlla xam na ko da fexe ba la nga daan def la nga ci lépp nga def ko bay jéem loo mënut loolu buñ ko defee boolewaat ko ci kër Serigne Bassirou bu ñu ko andee Serigne Mountakha dana xam ne mi ngi sàmm liggéey Serigne Touba bépp waaye njabootu Serigne Bassirou des suñu ginnaaw ginnaaw nag moom ngorom pasteefam pa ak ak ak ak yaatoom yaatalam sëñ te ber kenn naa ko damay ber njabootu Serigne Bassirou kon daa mel da njabootu daa jabo jàppe ne njabootu sëñ Basiru ñoo di njabootam te moom daa gëm ne njabootu sëñ Tuubaa gépp ñoo di njabootam kon nag fu waay nekk yow yaay xamal sa bopp nag ne sëñ Muntaxa moom wàcc na wàccoon ak noonu fas ne yéene màng liggéey bi bépp yóbbu ko waaye yéene noonu nu itam la ca sëñ ci kenn ëppale lay kenn du ci noo koy defar suñu bopp kon nun ñi xam ne sëriñ Basiru mooy sunu buntu sëriñ Tuubaa ci la ñuy jaare egsi ci sëriñ Muntaxa mu yóbbunu nan fas yéene lu daan def kenn ku ne la daan def xam nga ko tàmbali naa ci sama xam naa la ma daan def te fas naa ko yéene xam naa la ma ca saso te fas ko yéene kon kenn ku nekk la daan def nanga nga ba def ko ba def ca loo mënut kon nan waaj noonu ñi nga xam ne sëriñ Basiru mooy sunu bunt sëriñ Tuubaa nu dajale sunuy addiye yët ko sëriñ Muntaxa mu defal na ko ci liggéey bi sëriñ Touba nam ko daan waxee ka fa nekkal sëriñ Touba nañ ko yët lin am mu defal na ko ci liggéey ba liggéey bi egsi na ci boppam te yàkkali na ko kon nuy dina fas yéene jiitu ci ña koy jàppale ci liggéey boobee ba yàkkaleem googee mën a woyof tayu ci moom te mënu ko nam ko mëne ko ko bëggee loolu rek mooy kàddu yi doon jottali maa ngi jégaluwaat ñëpp sama jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci kër sëriñ Basiiru muy sëriñ Fàllu ak sëriñ Isaaxa ak sëriñ Moussa Naawel may sama jëwriñ ñëpp kàddu yi bi ko waxtaan ak sëriñ bi ci ñoom laa ko dellowaat delloo ko ci taalibe yi ndax nun cay mën a doxee ak nun koy liggéey ci ginnaaw ñooñee rek la nekk kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu